mbokkante no di ziar naa leen bàyyi na ngi am jàmm ma ne ko cey yàlla cey ay waay moo man nag Sénégal comprendre ma de am jëkkër am far mu ngi bëgg lëmb réew mi nag wax dëgg fa yàlla cey lii lii benn waay la ndeysaan waa ji nee na dafa amoon ñaareel ndeysaan nee na ma soxna Faatu jamono ya may takk ñaareel bi maa ngi ko fekkoon mu divorcé ba am benn doom ndeysaan nee bi mu amee benn doom ma daal di ñëw ma gis ko ma bëggu ko ndeysaan nee na mbëggeel daal di may gañe nee na ma commencé di ko labat pour takku ko def ko deuxième femme ndeysaan nee na nag soxna Faatu jamono yooyu maa ngi ko fekkoon seen kër ñu doon nekk ci ay jafe-jafe ay jafe-jafe maanaam dañ daan am problème lu ñu dépensoo pour toggu añ nee na bu ko defee ma daal di ko leen ci jàppale jàppale leen ci ci noonu nag man moom kenn ku ci ne di gën a won sa moroom mbëggeel nee na après ma daal koy takk ndeysaan nee bi ma ko takkee ma yóbbu ko ca dëkk bi ma dëkk ndaxte man dama nekkoon ci benn dëkk di jaay nee mu yóbbu ko ca dëkk ba mu dëkk mu fekk fa aawoom bi nee na di wujjeek aawoom bi ndeysaan ma ne ko ca eskay cay loolu nee na ndaw si nag bëggoon na ko lool ndax ñoom ñaar sëy nañu 14 ans def nañu 14 ans de mariage yoo xam ne ndaw si woon na ko mbëggeel yàlla it dogal na ne ñoom am nañu juróom benni doom ndeysaan nee na ku koo sëyal nag ba am ak moom juróom benni doom ba ngeen def 14 ans de mariage kooku bëgg na la te nee na it wonoon na ma mbëggeel bi aussi ndeysaan ma ne ko cey loolu nee ci noonu nag ndaw si toog ba ay jëmmi jamono ni ko dafa bëgg jënd ak jaay comme ay moroomam moo gën toogaay bu metti bi rekk ndeysaan nee na mu daal di yëkkati jox ndaw si financé ko nee na ndaw si di jaay ci dëkk yu sorewul ak dëkk ba mu dëkk di jënd ak jaay di dem di jaay di àndandoog ay moroomam di jaay comme ni ko jigéen ñu bari bëggee ndeysaan nee na ndekete jënd ak jaay boobu mu jox ndaw si muy jaay ndaw si commencé naa indi tànki bukki ndeysaan cëy yàlla nee na tànki bukki yi ndekete ndaw si am na benn waay bu mu xamanteel ba commencé ñoom ñaar ñuy génn nee na booba nag yëgul woon ne ndaw si mi ngi génn ak waa ji nee na ma ndaw si di génn ak waa ji di génn ak waa ji nee na ñoom ñaar ñuy vocalante vocalante di waxante ay message ay message yu doy waar di envoyante ay vidéo di envoyante ay sticker ba pare nag di utiliser ay mots yu doy waar ci vocalante yi ñuy vocalante ak waayam jooju mais nee na ndaw si li muy vocalanteeg waa jeeka vocalanteeg waa yëpp ndaw si du supprimer message du supprimer vidéo du def dara day bàyyi lépp rek ci téléphone am ndeysaan nee na ci noonu moom yëgu ci dara mu ngi fi muy jaayee ndaw saa ngi kër fa aawam ba nekk ñu nekk ci seen jàmm nee na jamono di dox di dox ba weeru koor daal di taxaw ndeysaan ma ne ko ca cey weeru koor daal di ñëw ndeysaan léegi mu ñëw sax de ndeysaan bu ko defee nag may def sama émission te duma naan café nee na weeru koor ñëw ndaw si woo ko ni ko dama bëgg a ñëw woor see sa wet ndeysaan xam nga rekk góor ñi parfois ñoom ñaareeli lañuy defal ay privilège ndeysaan cey la cey yàlla nee na mu bàyyi ñaareel bi ñëw woor see ak moom ca dëkk ba mu nekk di jaay ndeysaan nee na mu ñëw woor si ñoom ñaar ñu nekk nekk nekk nekk nee na ba benn jour rekk ñu tëdd ba ay 5 heures du matin sûrement waa ji dafa jógoon xëdd walla nee na ma jël téléphone am mu jël téléphone ndaw si di manipuler nee na ba muy manipuler téléphone ndaw si mu daal ciy fekk ay vidéo porno ngeen baal ma ci kàddu gi nee na ay position yu doy waar nee na waa ji envoyé ko jabar ji ndeysaan nee na ba pare mu continuer di xool di xool di xool nee na vocal yi sax dafa bëri ak vidéo yu bëri te yàgg kon ça veut que ñoom ñaar ba ñu dalee génn yàgg na mais moom jour boobu la ko gis nee na muy wàcc di wàcc ba mu yàgg mu yem ci benn vocal waa ji naan ci vocal bi ndaw si yow gis naa sa sinap bi nga def sànk waaye su ma sañoon nga ñibbisi ndax sa waajooju mënalu la dara tey ngaa ñibbisi bu ko defee ñu def ba mu baax ndeysaan nee na mu yem ci vocal boobu nee mu gisit jabar ji daldi tontu vocal bi nee mu liir bosu jabar ji aussi jabar ji daan ni ko yow yaa ko teree neex soo ma yónneewee paas suba suba ma fekk la fa nga ne ñu def ba mu baax étage ba mu kawe daal di fobeere ba mu wow ndeysaan ma ne ko est loolu ci jabaru jàmbur cëy yàlla waa ji nee na affaire bi metti ma lool daal di may derange waa ji nee na ma xëy jël téléphone bi yóbbu ko master ci ay gaa nee na ñooñu récupéreel ko vocal yi daal di ko koy envoyé ci yeneen téléphone pour mu mën faa garder vocal yi ndeysaan ma ne ko cëy yàlla aka metti na góor a fiir de ndeysaan waaye yàlla baax na nee bi mu defee loolu ba pare nag mu teg téléphonu ndaw si nee na après mu dem ci yaayu ndaw si ak pàppay ndaw si pour expilike leen problème bi ndeysaan neena mu dem toog ak parents yu ndaw si ni leen seen doom ji de daa am far ba pare moo far bi ñuy envoyante ay vocal yu salte ak ay vidéo yu salte ndeysaan nee na mu yëkkati téléphone bi ne day tegal yaayu xale bi ak papay xale bi vocal yi nee na yaay jeeg papa ji tëb dal ci kawam ni ko ñun dégluwuñu ay vocal ndax yow nit ku bon nga danga weer suñu doom yàq deram ci dëkk bi yépp kon amatuñu lu ñuy déglu vocal soo mënee nga tee soo mënul nga delloo suñu suñu doom ndeysaan ma ne ko cey yàlla ay eh waaye Sénégal ban réew la ñu ne sa doom su juumee dëgg la xëy na waaje waru ko woon a weer ndax warul woon a dem yóbbu téléphone bi ñeneen di ci jot mais yéen tamit wax leen seen doom dëgg waaye naan soo mënee nga téye soo mënul nga téye parce que xam nañ ne waa ji mbëggeelam dafa des ci seen doom ndeysaan ay waay waajur yi ñu war a yedd moom bu ñu bay bayalee du baax de nee na ci noonu soxna Faatu ma daldi xam ne ndaw si dañoo am juróom benni doom te ndaw si loxoom seen waa kër yooyu naan soo mënee nga téye soo mënul nga delloo seen suñu suñu doom bu ñëwee it mënaluñ ko dara nee na ma daal di bàyyi mu sedd ma arrangé bàyyi noonu nee na ci noonu nag fan yooyu ndaw si ñibbi woon na seen kër nee na ñibbi seen kër ñibbi seen kër toog fa ba ay jimmi jamono nee na ma daldi di xaw a giif ba pare ma baal ko te yàlla tax nee bi ma ko baalee te yàlla tax ñu arrangé waat ma jël si ko mu ñibbisi ndeysaan nee na ndaw si nag bi mu ñibbisee dane ko carrément dëkk ba moom xajatuma fa ndax dama faa nekk ak sama wujj ak samay nawle te yàq nga sama der nga ni man dama am far ba loolu siiw na fépp kon mënatuma faa dem di dëkk ak ñoom di nekk ci sama gàcce ndeysaan nee na mu accepteel ko jabar ji mu bàyyi jabar ji nekk ak moom fa mu nekk di njaay jaayam ndeysaan ma ne ko cey mbëggeel parfois de mu nangu loola loo xam ne bilaay ku la woon xaaja guddi na la di ko nangu doo ko nangu mais nag sant yàlla ndeysaan nee na mu baal ko nag ñoom ñaar ñu dëkk ndaw si nangootula dem ci kër famille bi nee na ba pare ndaw si mayu ko jàmm nee na ndaw si di ko indil ay problème guddi di ko indil ay problème bëccëg di ko teral tar di jotee moom fu mu toll nee na mu muñ muñ ba sonn mënatul a muñ ndeysaan nee na benn guddi rek mook ndaw si ñu tëdd ba ay trois heures du matin seytaane ñëw seen diggante nee na ñuy xuloo nee ñuy xuloo di xuloo ba mu yàgg rek nee na ndaw si xaw ma fu mu roofoon jaasi ndekete ndaw si yor na jaasi nee ndaw si rocci jaasi ji rek ne dafa koy gor ndeysaan nee na ma soxna si dama daw ndax su ma dawul woon daf ma koy gor nee na nag ma xam ne lii nag sëy nag bakkan jaru ko nena ci la demee police polisu caaro yi ndax nee caaro yi la nekkoon nee na mu dem polisu caaro yi daal di déclaré ne da doon joteeg jabar ji génneel ko jaasi ndeysaan nee na police yi daal di leeni napp foofu ne leen su ngeen bàyyiwul seen jote yi ak lu mën sante ay jaasi bu subaa dina ñëw jël si leen defeere leen ndeysaan nee na ba pare policier yi daan te ndaw si li mu def wóorul di yor ay jaasi ay xaaja guddi naan da koy goraate waaye su ngeen arrangé wul problème bi ba ñu ñëw fa suba bu ñu ñëwee yéen ñaan ñëpp dinañ leen defee rek nee na nag comme affaire bi demee na noonu moom mu ñëw daal di arrangé situation bi bàyyi mu sedd nee na bi mu bàyyee mu sedd mu ñëw tëdd mais nee na wóolootul ndaw si comme ndaw si léegi mbilam lacc mu yoreel ko ay jaasi te torompe woon na ko fi mu baal ko nee na mu delluwaat ca parent wu ndaw si pour set fois ci kalaame leen ne leen dama doon werante moom cette fois yi mu génne jaasi nee na encore parent wu ndaw si tontu ko comme lañ ko tontu woon ba ko ndaw si trompé ne ko sëñ bi ñun daal bu ñu ray ak wax suñu doom soo mënee nga yor soo mënul nga delloo sil ñu nee na cette fois ci nag mu gis boppam ne leen kon nag may naa ko baatam jël leen seen doom ndeysaan ma ne ko cey yàlla cey loolu doy na waar nee na mu fase ko nee na bi mu ko fasee ba pare nag mu jël téléphone daldi woo xale bu góor bi doon bi bi jabaram ji doon génnal ndax nee na moom dem na ba xam turuwaa ji bu baax a baax wax na ma turuwaa ji sax waaye man maa ne ko émission nettali ñun du ñu tudd tur nee na mu woo waa ji bi mu woowee waa ji téléphone cey yàlla cey nee na waa ji ni ko sëñ bi man defuma dara sa jabar moo ma woo bëgg ma waaxu bëgg a lekk sama xaalis comme daf ma bëgg a waaxu nag bëgg a lekk sama xaalis man tamit sama xaalis kenn du ko lekkee noonu maanaam daal xamal ne maag sa jabar dañ doon naxante daf ma bëggoon a nax man tamit ma bëgg koo nax maanaam dafa bëggoon a lekk sama xaalis man tamit ma won ko ne sama xaalis kenn du ko lekkee noonu man defuma la dara ndeysaan nee ci noonu nag mu kuppe ndax nag wax dëgg fa yàlla moom dëgg la waa ji defu ko dara dara dara dara ndaw si moo ko tooñ ndeysaan nee na mu bàyyi noonu nee na nag ndaw si fase na ndaw si instant bii nii ndaw si ñetti weeru iddaam mot na nee na fii ñu toll ndaw si nekkatul jabaram moom nekkatul jëkkëru ndaw si ndax weeru ñetti weeru idda ndaw si mot na ba tegal sax léegi nag waa ji problème am lenn la nee na dafa soxla conseil ndax ñenn ñi ñu ngi ko naan demal nga jëli ko rek nga baal ko te yàlla tax ndax am ngeen juróom benni doom nee na waaye it bu xalaatee li ko fi ndaw si jot a def yëpp du ko bëgg a jëli te it bëgg naa jàppale mm, doom yi ndax ndaw si xëyul gorul yattul te mi ngeeg juróom-ñaari doom ndaxte dafa fekk ndaw si amoon benn doom ba pare mu am ak ndaw si juróom benni doom nee na nag le problème a nekk moom dafa yor kër famille ca dëkk ba mu jóge moo fay yónnee dépense moo fay yónnee dund nee na actuellement nii nii nii benn mille francs lay jox ndaw si bu xëyee pour ndaw si dimbali ko ci juróom benni doom yi ndax nee na amu ko mënul dige lu mu mënul maanaam ndaw si ba mu nekkee ca kër gu màgga lépp lu mu yónnee ñoom ñëpp ñoo ko daan bokk mais mënul yor ñaari kër mënul yor ñaari kër mooy dafa awoo mu nga ca dëkk ba ak ay yaayam ak papaam mu war leen a yónnee lu ñu dund ba pare ndaw si dem na yóbbu juróom ñaari juróom benni doomam tamit bu bëggee yor ñaari kër yi du baax ci moom léegi nag conseil lay laaj waaw ndax nee na saa yu xëyee moom 1000 francs kese kese kese lay yónnee ndaw si ci juróom benni doom xaw naa tuuti nag waaye ndaw waa ji moo ne situation moo ko mayul ndax dafa yor beneen famille bu muy dundal ca dëkk ba mu dëkk ñëw ndakaaru di liggéey léegi nag mu leen di laaj conseil ndax mu jëli ndaw si pour sauver juróom benni doom yooyu ndax moom mënul yor ñaari kër te ndaw si it xëyul gorul yattul te mi ngeeg juróom ñaari doom moom ndaw si te seen waa kër seen loxo jotul seen ginnaaw mu leen di laaj ndax mu jëli ko wala mu bàyyi ko rek jéem a xool nu muy dundee ak ay doomam ndax dafa jaaxle ndax moom donte xam na ne jabar ji ku sikk la mais doom yi daal ñoo ko ci xaw a jaaxal te moom it bu ne mun na yor ñaari kër mënu ko ba tax na 1000 francs kese la leen di jox mbokki internet yi lii lañ leen indiloon na tey ci wàllu nettali mu nekk affaire bu doy waar comme ni ma koy waxee rek wax dëgg yàlla sëy moom du forcément nga toog ci soo demee ba bëggatoo nit ki rek mun nga koo ñaan baat mu dem nga dem ngeen xool nu ngeen it yaree njaboot gi après waaye wax dëgg fa yàlla yenn yi ñaaw na moo xam ci côté ku góor wala côté ku jigéen ki bëggatoo nit ba pare di ko te wala bëggatoo nit ba pare di dem di am ay far wax dëgg yàlla lu ñaaw a ñaaw a ñaaw la sëy daal dala dalay arrangé nga toog ci boo gisee ne mënoo cee toog nga ñaan baat ci njeek nga dem mu dem moo gën di def yenn yu salte yi wax dëgg yàlla ñaaw na torop waaye nag sant yàlla li ci doy waa rek mooy xale yi juróom benni doom yooyu nga xam ne tey jii waa ji nee na mënul yor ñaari kër te bu sàgganee joxu leen lu doy ndaw si liggéeyul xale yi seen vie mun na yàqu ndax xale bu viam staabulul mun na fa jaaree sànku ndeysaan ñu leen di wax mu leen di ñaan nag ngeen conseiller ko ci rek lan la war a def mbokk internet yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax li leen leen indiloon ci wàllu nettali di nuyu suñu DG Sey Latir ñu ngi koy ziar bu baax a baax di nuyu Awa Dakar nee na ma Awa Dakar ay ca Awa Dakar maa ngi lay xaar ñu naanandoo café incha allah maa ngi lay xaar bu baax a baax saa yoo ñëwee rek man ak dina dinañu naanandoo kafe maa ngi lay xaar café gu neex lay doon incha allah di nuyu nag waa Fuuta bu baax a baax mi salmini bandiraaɓe haalpulaar fof mi salmini on no feewi on mbaɗat kam comprendre noon parce ce que wone mon mbiɗo mi fota wiide tukulor ça on gandat min komin nduddujeeri sa woni nduddujeeri noon wonno konnguɗi ɗi ngannduɗaa waɗete échappé hay sahaaji somi yiɗi wiide haalpular walla mi yiɗi wiide pular mi yejjitat mi wiya tukulor par que nak gila gonmi cukalel haa jooni mi waɗat utilisé le mot tukulor te ngo ngannduɗaa a woowi ɗum gila ɗo woni cukalel pour pina tan ɗum changé weeɓata donc il faut mbaɗon kam comprendre gandon tan somi juumi wi tukulor ne gandon komi juumɗo rek kono mbaɗa faami no feewi wona tukulor ko haal pular bon mais mbaɗe kam comprendre nak par ce que gila jibinami ha joni ko mo tukulor tan mbaɗanmi utilisé ko nduddu jeeri way noon par ce que sahi si a woowi woni konnguɗi rek ko ɗum gowata mi salmini banndiraaɓe fuutankoɓe fof banndiraaɓe haalpular fof kala to haalpular woni tan mi salminima no feewi mi ma waccu way ma mi waɗi on jaajefol bo baha bah jaajefol bo baha bah kana satola koro en mone kono ci caméra ɓe feggo ak ayda ba ayca mbokko internet yi ma leni ziyar bo baha baha bah di leen johaat dig daje ci yeneen i nettali d'ici là portez vous bien bon bonne de programme sur GS Info ñu daal di koy terminer ak suñu kaasu café